waaw mbir mi dal sama kaw de confiance rek la ma dale man sama appel Baye Diouf fii ci Touba loolu lañ may most of the time loolu lañ may wooye yaa homme de tenue benn bu ma xamanteeloon ci période de màggal Kër Ñang xamante wu ñoo sax doomu euh, kilifa gu nekk Kër Ñang la xamanteel bon période boobu euh, ñu wax ba ma abal ko sama kër ma xam ne comme que dañ ne xale bi def carrière la euh, ñu affecté ko Touba bon ma sa seen yéene jàppale ko ginnaaw bu mu ko sakkoo parce que man xaw ma ko ci mbay xaw ma ko ci bàyyi musulman bi moom benn relation bon mu ñaan ma mu abal ko sama kër fayul courant euh, fayul loyer waaye nag dama ko abaloon kër gi pour mu sàmmalal ma sama kër parce que période boobu xamoon naa ne meuble yi ma toog nii tey ak euh, quelques yeneen yu matériel dinaa ko fi commencé indi ci période bala ñuy màggali ndaxte damaa amoon yéene commencé euh, samp sama taxawal sama kër gi ci Touba bon loolu nag ci laa ko bàyyee ci kër gi bon ba xew-xew bi am euh, mu fekk ko fi moom dong kott nag moo doon yeewoo ci kër gi li li ñu fi jël itam moo nag moom dong kott ñoo xamante ne mi ngi ci kër gi. xew-xew bi moo di le 12 novembre dama fi ñëw. am na xale bu nekk Italie bu ma jaay sama kër fii ci koñ bi ak yeneen kër yu ma fi jaay ak itam xaalis bu ma dencoon ci restaurant wu màggal gi euh, ñu war a nag karole kër gi rek gi ñu nekk nii dañoo war a nag karole façade beeg façade bi parce que na damay xaw di sonn chaque màggal ma ñëw peinture bi ñu estime ñu ne li koy karole rek day nekk ci euh, plus de 6 millions 6 millions yoo xamante ne bii Euh, main d'œuvre ñëwut amul main d'œuvre ñëwut suuf ñëwut ciment ñëwut ci biir loolu nag ci la estime estimé ne kon ak xale bee liñ ñu koy bëgg a defaral euh, bu ñu amee quinze millions ñaari chantier yëpp dina mën a démarrer te benn bi dina pare léegi le 12 novembre ñëw naa fi xale bi yónnee ma pare Italie 4 euh, millions bi ma yónnee 4 millions mu ñëw fekk fi 9 muy 13.

Euh, cambriolé sama p sama palanteer bi fii tey euh, bassin bi man li ma xaw a jaaxal mooy bi ma waree kër gi scénario bi ma xool ko lu ëpp cinq six sept huit ba neuf fenêtre mi ngi ci kër gi en tout ak deux yi nga xamante ne bi yeneen trois yi nga xamante ne bi wala quatre yi nga xamante ne moo nekk ci ñaari néeg yi ma ko abal benn néeg bi ma ko abal ak néeg bi ci topp ak sama ñaari néeg ak sama benn néeg fofu côté bobu 2 3 4 4 4 fenêtre mi ngi fi fenêtre yépp ñu bayi len fi ak yeneen yi ci entouru kër gi entouru kër gi amna na bon 4 5 6 7 8 9 10 palanteer yo xam ne ay grille ak ci seen buntu ñu bàyyi yëpp ñew ba ci palanteer bi ci baaj bi sama boori kër sama buntu sama biir nek diko dajji loolu ko ma xam kese ko mën a def vraiment sama moom bu waxee sa diggante yàlla waxal naa ko rek tere sonn ci kër waaw xaalis bi am lu mu ci gis fam ko gisee xam na ko xam naa ko peut-être màggal gi moo nu gënoon a mobile bon ñu koy yónni euh, comme que moto la yore bon mu ko ñu koy yónni mu nuy demal ay ay ay course wala si boobu mu noo jël naa si xaalis ba tey yónni ko waa loolu laaj nañ ma ko ma ne am ñu sax ñu am na sax ñu ne ma xanaa kii def la xërëm ak def la lii def la naa ma ne man daal bon am amoon naa confiance que ne euh, un golo moo la gën a xam kër gu bari xaj un homme de xale buy def carrière bu ma ñëwee mu may dawal safa ak wa euh, ba jege ma bay dugg sa néegu biix euh, ma jàppoon ne bon diggante le 12 ak le 17. Euh, man naa see mën naa ko avertir mu veillé sama néeg te bàyyi fi xaalis bi ñëw commencé sànc bi jàppoon naa ne lii du ma dal. bu bu ma amoon benn soupçon ci moom du ma dal bu dul woon homme de tenue itam sax du am duma am ci moom confiance boobu ni mu nekk homme de tenue ma amat ma moo tax ma am confiance ci moom parce que dama jàpp ne benn homme de tenue day représenté euh, mille personnes wala junneey nit ak man ma naxee nag dafa ma naxee commissariat bu Touba waaye bi ma demee ci ay kilifa am na lañ ma servirul foofu am na commandement spécial bu mu fi nekkee loolu moom ay kilifaam wax nañ ma ko ginnaaw bu yëf yi feeñee li gën a tax sax euh, média bi yëguñu ko woon ay kilifaam ñoo ma ñaanal ca départ ba ne ma euh, nañu bàyyi ba kilifa yi yëg ko yaa ngi dégg foofu dama mën a def euh, ransom bii may def nii ne ko ci xam dara sax may nañ ne si un million euh, ransom boobu laa bëggoon a def waaye kilifa am ñaari ma ne ma ñuy stand ba kilifa yi yëg ko bi ko kilifa yi yëgee itam gis naa ne bon euh, ci li mu mujj xam ñu ngi ciy def seen démarche yi bopp parce que wóolu naa leen wóolu naa ko wóolu naa ay kilifaam wóolu sama susu réew parce que seen vocation mooy ñu sàmm nu sàmm suñu njaboot. bi ma xamee ne seen vocation mooy ñu sam nu sam suñu njaboot sam suñu alal motax dama porte plainte au niveau de euh, procureur mu jox enquête bi brigade de recherche ay kilifa am ñaan mo may stand by bon ba légui nak bon depuis le 2 ba tay ji le 20 janvier euh naa la seen bop euh, di len dugli itam di len woo it ci di len ñaan di len siaré ñom ñep ci ko ba suuf di len ñaan ci lo xam mom lañ bokku li nu bokk mooy lan mooy dëgg li nu bokk man ak ñoom nga xaaye euh, ko moomu ma mi ma sipsone it ko ñun ñu ni euh, jox dëgg moomuñu ko moomuñu ko dëgg alalu maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yolum yaate ci dëgg bu ko defee muy sunub sàkk ñun ñëpp loolu rek la mën a def ab ñun ñu sàkku xam naa ko xam naa ko ci euh, xam naa ko xam na ko euh, dafa toll ne euh, enquête bi dafa am fu mu toll euh, te bon bàyyi naa la seen bopp ba heure bi danaa moom xam na fa mu nekk xam ne li ma naxe woon ak la am du benn ma itam bon du ma ne naxe woon na ma ko du parce que mën naa ko waaye ginnaaw bu yëf yi amee laay soo a xam ne service direct ci commissariat bu Touba dafay ñëw ak benn cantonnement cantonnement boobu nag euh, sëñ bi am na ci responsabilité wax naa ko ñaan na ci sëñ bi ñaanal na ma ci euh, wax naa ko ko ñu ngi duglu parce que ñun waa sëñ Bassirou la ñoom ci juróom-ñaari maam ñun waa Lambaay la ñu ñi ma xam ñëpp xam nañu ñi ma xam ñëpp dañu ne kii de bu fekkente da cee laale xamula bu la xamoon du ci laale parce que euh, du mën a yombe noonu. na du ma ne man policier la moom la ma wax moom moo ma ne policier la waxuma loolu dama ne homme de tenue la xam naa moo wax ne policier la li ma wax mooy police jaanatu bi du foofu la service direct dafa am cantonnement bu ko fi indi xam dafa am cantonnement bu waaye police jaanatu bi service direct ñoom nag rek bon euh, xam na li mu def xam na li xam na li mu euh, li ñu jotee moom donc kot moo doon yeewoo ci kër gi keneen yeewoowul ci kër gi ku dul moom waaw man mënumaa soupçonné kenn ku dul moom te moom donc kot laa wóolu woon ba tax ma bàyyi fi sama xaalis moom donc kot moom mu xamoon na itam xaalis mu si kër gi moom donc kot itam moo am moom laa ci amoon si moom que ne diggante le 12 ak le 17 xaalis bi mën na fay ñoŋ ba ma ñëwaat fi commencé sànce bi. samay sama sëriñ suñu mu taxaw amul woon ne am naa fi xaalis boobu denc man sama jabar xamu sama doom xamu ko ku dul mën a yàlla ak moom xamu ko woon te te gis naa ne. sans palanteer si biir lañ ko dajjee xaaj bi muy woon ci benn walis moo xamante ne bi moom laa la woon ci eh, ginnaaw chaise boobu ma la woon léegi eh, scénario bi bon boo gisee eh, image xam ne palanteer bi benn dañoo taxaw ji bi di ci ko mu fàq wala ñu nekk si biir puus ko bu fàq bon bon ginnaaw la tax mu ñëw néeg bi kenn forwaase wu fi dara foofu rek lañ dem direct jël xaalis bi ki ma sàcc dafa ma xam te la plupart dañuy wax ne ab sàcc sàcc siwul dafa jël si kii sàcc jëwul sàcc si dafa jël si xool na ba xam la muy jël si fu mu nekk mu dem jël ko parce que man ci milieu laa nekk xam naa bu baax mais sàcc sàcc siwul dafa jël si bon néew moo moom la néew du moom waaye man sama premier soupçon moom la parce moom laa bàyyi woon sama kër. pour mu dugg sama kër itam pour ma xolale sama kër la bu fi dara xewé guddi gogo mom donc kott mu yeewoo ci kër gi te xamul nu mu démé kon dama mëna a sibsone am mu soufé am ben euh, ñaareel bi amna fi mois de mars ba mois de janvier bi mercredi bu li passé rek mois de mars daw 2021 ci près mois de mars la fi ñew ba mois de janvier bi passé peut mois de mars wala bon parce que ci jamono boobu conformat dafa commencé waa loo ma bëgg a jotali mooy euh, dañoo def 33 ans ci àll bi parce que boo jëlee 2017 ak léegi ci laa toog ci dëkk bi te le 11 janvier 1984 laa fi génn ba fi génn maa ngi yor âge de 24 ans yu manqué 2 mois janvier février mars ba am 25 ans ci àll bi ba 2017 ak léegi ci laa toog ci dëkk bi di investir. complètement waye appel bi nga xam ne la ci dëkk bi son excellence monsieur le président moko ko 2012 ci immigré yi ko jappalé ci jamono dékkal ngor ba ñëw investir ci dëkk bi ma xol sama bop ma xol affaire bi si yàgg ma ne lu may nuru man bu dee noos rek dëkk yi ma tek sama tank continent adina bi fu ma tegul sama tank amul ndax sama liggéey hôtel rek moo fa yobbu may xol bu ma amee juróomi dërëm tubaab laa seeyal sama premier dom tubaab laa ko jural mo do seigne Saaliw ba ma amee juróomi dërëm lekk dërëm ba ba ma noosee ba noosu ma lekk jaar dërëm bi ñett dërëm yi ma andi ko Sénégal ñëw investir sama kër kër gi laa jëkk am ci àddina surface bi ñu suuf fa teeree teerewu àddina li ñu jëkk rëdd ne ma sa kër la muy pàkk bii la mu bëgg ko valoriser ba jënd sama yi yëpp ne fi mu nekk ne samp kër mag a ngi ñëw yaa ngi dégg daal di samp kër nag toog Tuubaa yaa ngi dégg bàyyi xale yi ci entreprise bi ñuy liggéey mën nekk seen DG seen président directeur général seen PCA wala war naay wax noo ko mën a tuddee te ñuy liggéey correct jël seen seen salaire correct ma ñëw rek benn sàmba su baali boo xam boo xam fu mu jógee war a ñëw rek yaa ngi dégg doo doon jël sama 13 millions dem yoonam mais xale bi nekk Italie lu ma koy wax xale bi nekk Italie ñi immigré yi mujj a dem nga xam ne 6 yi moo ma ko yónnee. te ci biir sii millions yi yónnee na ko fi am fi naqar boo xamante ne bii ci biir euh, xam na ko xam naa ko xaay bu mu ma jox mu dugg sama loxo moom dinaa ko dinaa ko defal fa ma ko war a defal ah ñun ñu nu ñuy dox lan na ñuy doxe yaa dégg bëgg liggéey bëgg a tedd te nangu ko liggéey fu mu tegu ñu ne xaay bi day nar a xaay bi musuma jëm ci saayir walla jëm ci baatit moom mooy. sama xaalis lekkuwut ñi ko jël nañu noppal enquêteur yi noppal ma nañu noppal enquêteur yi noppal ma noppal maître procédure bi sama xaalis dellu si parce que loolu rek mooy mën a am yaa ngi dégg euh, ñun ñëpp ñu siggi ñun ñëpp ñu nekk ci ab sac ndaxte lii kat wax dëgg yàlla mënu yombe nii man de duma ko man de man de ko ma xam ak lambaay ga ba dëkk xam ne sama xaalis lekkuwut